ñii may dul wax de ñii may benn pot lan consigé Nafi Diagne boo fekk dul may rek mooy ngaan ngaan kaa wax leen ba ngaa dégg dëgg maa xamante Nafi amul temps de mooy daa may jël temps Nafi yom xam nga fa lay de jaabante Dubaï Chine Amérique ba pare dof yi ngaal ngaal yoruñu dara déedéet nit ñi toog tubaab kay di may silencieux ñoom eh, loolu tubaab moo ko wax tubaab nee na seul le tonneau vide fond du bruit dëgg la ñi yor rek a toog di ratatata waaye ñi yor bu nu waxee ren balaa ah, wax la leen ndaw te gàtt ah. bàyyam da koy moom na na fi jaay mooy tuma ñaan waajur daa baaxtu doom te gërëm la waaw li ma jaaxal ci Nafi mooy du saaga du xas déedéet du wax lu ñaaw te du ko def déedéet Nafi Diagne waaw moo lay teral woo la du la jim sàcc du wax lu ñaaw te pale la yor Nafi loolu mooy doom ndeyam la yor loolu mooy doom da ba pare na xamal li a neex muy jël boutique ay boutique laa la wax yëpp euh, tuddee ko ñilaan shop yaayam la ko tuddee saagul yaayam dóorul yaayam xam nga nu muy def yaayam saa bu xëyee mu jox ko ñaar fukki junni na ko jël demal demal marché ñaar fukki junni la na fi jaan di jox yaayam du dóor yaayam du saaga yaayam du xas yaayam